Euh, assainissement maanaam euh, jël ndoxu taw bi yóbbu ko foo xam ne fii du sonal nit ñi ak jël ndox bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci ci kër yi euh, ginnaaw boo xam ne bii massawu nañu ñi nga xam ne ñëpp fi mu nekk nii ñu ngi ci biir ndox mi bàyyi seen kër yi gouvernement président Macky Sall bàyyiwul woon Touba ndax ci mbirum assainissement eaux usées ñi ngi pare fi mu nekk ni benn projet boo xam ne bii fukki milliards la ak juróom boo xam ne bii ci programme mu 10 villes la te Touba amoon ci pàcc bu am solo euh, loolu moom mooy ndoxu euh, eau usée bi jóge ci ci gaanuwaay yi ci kër yi waaye ci ci mbirum assainissement ginnaaw euh, dogal yi nga xam ne président jël na ko muy dogal ci lu jàmp muy ñeenti milliards yi nga xam ne ñu ngi koy indi fii pour yokk li ñuy pompé fële ci station Kër Ñang te sama naataango ministre de l'intérieur wax ko am na beneen programme boo xam ne bii mooy ñaareelu pàcc Euh, programme bu ñuy def ci mbirum ndox mi boo xam ne bii ñaar fukki milliards lay doon ak euh, ñett juróomi milliards yi moom la ñuy jagleel pour yokk doole station yi existe réhabilité leen maanaam gën leen a yeesal après fukki milliards ak juróom-ñaar nekk nag loo xam ne li lu bees la ñuy def pour yeneen station yoo xam ne dañ koy créer ne yeneen bassin ak euh, ay yeneen tuyaux yoo xam ne dañ koy dugal ci ay quartier mais loolu programme bu gën a rëy la dafa laaj ay étude et étude d'abord def ko euh, seet fan la ñuy amee suuf pour def bassin yi nan la ñuy defee tuyaux yi donc loolu suñu jógee ci lii rek euh, office national d'assainissement dana dugg ci ko xayma di def études yi pour su études yi pare rek ñu jublu ci liggéey boobu